Cheikh Omar di dem di dem nag ba yàlla dogal lam dogal ci gara foofu rek a ma ñor ñu bari li tax ma ne Cheikh Omar deewul foofu lay tëjee waxtaan wi mu jeex ñu xam ne deewul ay preuve yi wane ne deewul laa leen di jox. en 1989. waaw en 1989. surtout El Hadj Tidiane Gadiaga surtout El Hadj Tidiane Gadiaga. nekkoon ak nekkoon ak moom. ci chambre 41. ci chambre 41. ci université ci université. benn waay boo xam ne. benn waay boo xam ni. dafa mel ni yaram wi neexul dafa mel ni yaram wi neexul. mu ñëw mu ñëw. ba ci buntu néeg buntu néeg bi. ubbi buntu bi ubbi buntu bi. taxaw taxaw. dal di ma joxoñ. dal ko joxoñ moom. ne ma ca sa sa téere daan jàngee daaw. ne ko sa téere yi nga daan jàngee daaw. ak sa këyit ya nga xam ne moom nga daan defee. ak sa këyit yi nga daan defee exercice. yëpp laa soxla yëpp laa soxla jox ma ko. ma def ko ci mbuus. mu def ko ci mbuus. jox ko ko jox ko ko. fi ma doon jàppee fi mu doon jàppee. balaa muy génn. fekk na waa ji ne mes. fekk na waa ji ne mes. ñu tëdd guddi. ñu tëdd guddi. am lu xew. am lu xew. surtout El Hadj Tidiane Gadiaga surtout El Hadj Tidiane Gadiaga. ne ma Cheikh Omar. ne ko Cheikh moo fi jaaroon moo fi jaaroon. 89. ci gàttal El Hadj Moussa Bal ñu àq de ci jeexal yàlla def nag Cheikh ci mbaaxam li tax ma ne deewul. tubaab bi lu mu bind yéen ñi jàng tubaab. les falaises de Bandiagara. waaw il a disparu dans les falaises de Bandiagara. disparu ak mort ak mort benn la ak décédé benn la tubaab de man ñaar laa ci gën a miin ci tàgge ci rajo bi il est mort il est décédé te dégguma ci benn. nit nag day màndu loo xamul bul xamul neel xamoo rek. disparaître lañ wax dafa ñëw ba ci gorot bi mu summi jaaj yépp woo taaw bi mu ñëw mu jox ko yépp laal nag ismu ba ko yonent bi waxoon te naanoon ca maawul xayaat moom la laal rek dugg ci gorot ba ne mes mooy tóot mooy kii bi Abdou Aziz doon wax daf ko junj bam laalee tur nag la ne mes gorot woowu xam nga ko ci dugg ne mes am na foo dem ñett laa ciy joxe comme misaal bàyyi sànq bu njëkk bi am na ku ñuy wax Babacar Njaay mu nekk kër Alaaji Abdul ñu bari xam nañ ko léegi mu ngi fii ci jëppal nijaayam ca Saalum at bu jot Cheikh Omar daf koy gane si muy rey ay nag di teral nit ñi góor gi gaañu na daaw jéeg buy Cheikh Omar ñëwee moom rek lay waxtaanal ci néeg bi waaye moom mooy waxal ñi ci des te ñaara ko ko may dafa am doom tuddee ko Cheikh Omar ñi ci des ñëpp seen turandoo yaa ngi dund tabaski jot seen turandoo yi xottil leen turandoo Cheikh bi nag di jooy ne ko papa ana sama yére sama turandoo xanaa du ma indil sama yére xam nga xale rek mu ne ko yow sa turandoo dee na xale bi nag di jooy rek ndeysaan ne ko kon man du ma am mbubb ndax sama turandoo dee na bon ci guddi gi Cheikh Omar ne ko pëkk-pëkk mu jóg mu ne ko maa la wax ne dama dee am sama yére yu turandoo ngi nii jox ko fii ci Saalum Babacar Ndiaye mu ngi fii ci jëppal deewagul moom yàlla na gudd fan mu ne ko nag li lay won ne deewuma ak mu jot may naa la ngan ci weer wii waaye yow rek yaa may gis ñi ci des yaay wax ak ñoom te bu ñëwee ceeb ya muy togg daf ciy lekk nit yéen ulamaa yi wax leen ma ku dee nekk barzaq même bu ñëwee togg ak yow di waxtaan boo tegee lekk du lekk ndax xaalu lekk jeex na ci moom sëñ Babacar si mën na la feeñu nii yàqazatan léegi jox lay secret nuyu la fóon la raay la waaye boo tegee ceebu jën du lekk parce que passé na ceebu jën mu ngi ci xayaatul barzaqiya Cheikh Omar nag day ci di sax benn ngu ñaar ci Saalum benn tey genn góor gu ñuy wax Aliou njaay nekk ci tool yi di ji gerte am góor gu ñëw ne ko may ma ci sa saako gerte boobu may ma ci tuuti mu ne ko yow da nga dof man may ji sama gerte nga naan naa la ci may xam nga saalum saalum gerte rek la gën a fonk moom la gën a fonk ci yàlla jaral na ko bañ a julli jaral na ko bañ a def dara góor gi ne ko bu soobee yàlla loo bay du baax mu ne ko tukkal fële tukkalóor bu bon bi nga doon da iñaan rek sama tool bii moo la moo la xañ jàmm mu bay lépp siti góor gi jaaraat fa Cheikh Omar ne ko lu ma la waxoon mu ne ko du waaye yow yaay kan góor gi mu ne ko boo tolluwaatee ci ji danaa ñëwaat waxaat la li ma la waxoon soo defaatee ma defaat soo soppee ma soppi mu tolluwaat ci ji di ji góor gi ñëwaat ne ko may ma ci sa gerte gi mu tibb àndaar jox ko <laughs> mu ne ko incha allah dana naat dana saq dana barke mu ne ko waaw yow yaay kan mu ne ko maay Cheikh Omar waaye na yem suñu diggante. bi ci des fii ci Ndar kër Serigne Alpha Xumma sama xarit intime la woon Elimaan Awa Ba ca Ñooro moo ko jàngal di sëtuma ba jaxu ba Elimaan Awa Ba moo daan wax ne maay ilimaanu jàkka ji maay maay maay ilimaanu jumaa ji may chef de canton waliyu la ci xadara ba lay fanaan fekk deewuma kenn mënu ko jël ci man ilimaan awa ba ponkal la woon moo ko jàngal ilimaan awa ku ko xam la ak ku ñuy wax Cerno Abu ci bànduulu booy dem sookoon ci yoon bi ay xarit lañu woon Cerno Abu bànduulu te boo demee fañ ko rob ci bàndulu mën nga ko romb mille fois doo ko xam te ponkalu mboli yu la bokk ci tariqa bi Cerno Abu ca bàndulu Ousmane a ngi mi ngi rek mi ngi woo sax am na yu des yu bari xaju fi ci gàttal ma nekk kër Cerno kër Sëriñ Alfaquma ca Ndar ana soxna si Njaay mu ngi fi war na koo xam ndax xaritu alaaji Tijaan ñang la woon Sëriñ Xuma ah waaw kañ Lamine Diop a nga ne waaw waaw mhm. oustaz Lamine Diop a noonu alaaj ci jaan ña ko ron moo ko yàpp mu nga jeex na mhm. jeex na mu gàtt bëgguñ moom dofu alaaji Tijaan ñang la boo ko tuddee rek jeexal na waaye passage la woon dañ fa jaaroon rek dimbale ñu yàlla def nag sëriñ xumma am genn góor tukkulóor gu daan ñëw ci moom xool ma rek ne ma doom man dama laa sopp ñuy waxtaan Cheikh Omar sëriñ xumma ma kii ngay gis de xariti Cheikh Omar la da koy gane si at bu jot ca Ndar sëriñ xumma yeggoon nag moom foo xam ni billaahi wal kitaabi ne na moo tax ma ne leen man sant naa yàlla dafa am bés tàkkusaan taalib bi yëpp a ngi toog te sëriñ xumma boo mosaan ñëw këram fekk ko ko fa boo jëlee cent franc ne nangam ak nangam laa doon ñaan lu fekk mu fi sëriñ xumma yàlla ëpp sànni ko ci biir kër gi bu ñëwee cent franc yëpp lay ramasser téye ko bu xëyee suba toog ci ëtt bi ku ñëw mu ne la cent franc bi yaa ko fi indi démb nangam ak nangam nga ci waxoon tàllalal loxo yi. yàlla moo mën waayam yàlla mën waayam. ba cent franc yi jeex te par cent franc rek la daan jël. am bés ñu toog maag moom ca ndar di waxtaan taalibe yépp toog mu génnee ñaari yi ndeysaan teg toog ci toog ci benn bi ne ma Chérif toogal ci bi ci des daf ma daan wax ne saa boo xëyee ñëwoo sama kër bàllu ma la ko te diiru li may nekk ndar saa bu ma xëyee dem këram dina rey xar wala béy yëkkati junni jox ma kulla yawmin ma toog ma foog ne lu ne la sëriñ ma di def mu ne fotokat bi gorom la mu nga France fekk mu ñëwoon vacances mu ne ko photo ñu mag Chérif photo yooyu mu nga ndar doomam bu ñuy wax Cheikh Xumma moo ko yore Moodu mooy taaw Mouhamad Cheikh Tidiane moo ci topp Cheikh tijaan moo yor photo ya ku dem pikin ca ndar nga laajte Cheikh Xumma wala Moodu Xumma dana la wax lii ma lay wax ñu photo ñu ba yegg mu ne xam nga lu tax ma def ko ma a ko déedéet mu ne billaahi dafa nosoon nag billaahi Chérif samaam yonent bi moo ma wax ne maak yow ñooy dendee jenn ëllëg ma bëgg ñu def ko niir fii balaa ñuy dem sallallahu alayhi wa sallam xumba góor gi ñuy waxtaan nag maag góor gi mu ne ma doom xam nga lu ma may Cheikh Omar di ma seet si ma ne ko déedéet mu ne dama doon dem Fuuta ma ñëw gaal gi ma war a jàllale pour ma dem ci dëkk bi gaal gi rëcc ma ma toog ci tefes gi di xaaru gaal gi pour mu ñëw. doom mbaa bokkoo ci ñiy sàggane yóbbante mu ne ko déedéet waxal rek mu ne ko boo demee joxal ma ko góor gu ñuy wax maxtaar saaxo boo ko fa fekkul ñang fa fekk jox leen ko. waa ji ñëw tey laay door a tudd góor tudd maxtaar saaxo dama daan junju rek. bi mu ñëwee fekk góor gi maxtaar saaxo tukki moo jàngal Cerno Saidu Nuuru. wallaay alaaj bi wax na ko ci benn waxtaanam. mu tukki ndekete dañ miraas gannaaw góor gi ku faatu woon carnu carnu Saidu Nuuru werante ci ak kii fa bàyyi woon mu nekk magu daara ji mu ne ko nii la mu ne ko nii la mu ne ko nii la mu ne ko nii la mu ne ko niñ bind Seydi Hadji Malick leetar laaj kon ban moo ci gën a jub bi leetar yegsee ci Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick leen yéen ñaar ñëpp am ngeen dëgg waaye kenn ki njuumte boroom xam-xam moo ko dal waaye ki ñuy wax nu euh, Cerno Saidu te nuuru jur ko kooku la miraasam jaar yoon waaw ñu di ko werante Cheikh Omar nag yónni leetar foofu biir mu ñëwee nag fekk fa góor gi Maxtaar Saaxu mu mu ne ko ñabb leetar bi ne ko am dafa am góor gu ma ko jox ne naa la ko jox mu ne ko toogal mu toog mu ubbi lettre bi dafa ubbi lettre bi nag ne dal la xam waa ji ne góor gi may nettale de mu ne maa ngi daan tey ma dee de lettre bii ma indi kii ak taalibeem yii wër ko ma jox ko ko mu xam ci sama kanam man moom mooy sama dee man nee na fi ma toog maa ngi lox pat pat pat pat mu ne ñuy tëpp tëppal góor gi di tëpp tëppal góor gi ba góor gi jóg xëqi nee na ki indi lettre bi ma ne ko maa ngi nii mel ni mu ne ma maa ngi mel ni ganaar gu tooy ne ko maa ngi nii mu ne ma doom ki la jox lettre bi xam nga ko ma ne ko déedéet mu ne ma Omar Fuuti yu moo la ko jox doom miraas mi amoon ci kër gi la doon gàgganti nee na li Malick li li Seydi Hadji atte ah. ci Seydou Cerno Seydou Nourou moo wéy nañ wéyal boobu waa ji ñibbi si nag tëdd néegam di nelaw mu ne Cheikh Omar ubbi bunt bi ne ko pëkk pëkk ne ko dem nga màkk mu ne ko déedéet mu ne ko dinaa la yóbbu màkka ren bul ut xaalis bul ut dara ñetti salaatul faatihi laa lay yóbbu màkk góor gi ne ma xëy rek di tàggoo man mi njaxeen màkka de nee na fu ma dem rek ne mi mi ah, xaj mi yaxaat màkka de mi ñépp di ma ree naan ki amul lu mu lekk ne day dem màkk mu ne ma balaa màkk di jot may naa la semaine bu jot dinaa la gane si lenn rek laa bëgg nag taalal ma attaaye rek ñu attaaye ma ak yow nee na semaine bu jot góor gi ñëw gane si ko ñooy bokk attaaye Cheikh Omar nee na ba aj jot mu ne ma demal ci avion ba nga jàng ñetti salaatul faati nee na ma ñëw ba ci avion bi jàng ñetti salaatul faat yi man la njëkk a yéegal te yoruma benn kayit mu ne ma biñ wàccee Medinatul Munawwara maa ngi ko fekk ci raw du yonent bi mu taxaw ne ma defal sa ziyaara moom Cheikh Omar Cheikh nee na ñu ñëw ci Makka mu tawaaf dajeeg moom mu ne ko tawaafal gaaw te def sa ñaan nee na ba aj gi jeex ñuy ñibbisi mu jiitu ma ci aéroport bi ne ma jàngatal ñetti salaatul faati ma jàng mu ne man la njëkk a mu ne ma ma ñibbisi ak sama mbaxanaa ak sama bëñ yu xonq ñëpp naan ndeka ndax xam na xam dem na Makka fa tabaarakallaahu buñ ko toppee du jeex itte yi bari na soxla yi bari na waaye ku dee yii du ko def bi may mujjee nag pour Thierno Bachir Bég soppeem bi Alaaji Abdou Aziz moo ko def Badou Kañ ji doomam ñëw na fii ñëpp gis ko Badou Kañ ji la Alaaji Abdou jox cinquante mille ne ko demal ma fuuta boo demee ba ci dëkk sàngam na nga taxaw dina am góor gu la romb di sàmm ay xat joxal ma ko ko ne ko mooy sama hàddiyee ci moom mu ñëw indi ko dem ni ko góor gi waxe tuuti rek góor gi ñëw ak ay xaram di sàmm mu ne ko ñabb ne ko sama papa nee na sa hàddiyee la mu ne ko eh waaw boo demee ne ko jazakallahu xayran yal na yàlla nangu nee na jàmm santeeg moom ci euh, façon bu bu rafet te gaaw nee na ma ñibbisi ne papa jox naa ko ko mu ne ko jërëjëf Badou bi nga ko koy jox maa ngi lay gis. manqué loo ci dara badu eh. jërëjëf xam nga ku ma yoon yónnee woon mu ne ko déedéet mu ne ko sama am Cheikh Omar mu ne ko papa mënu ma koo na mu ne ko kon doo ko gis eh. ku dee dana lekk hàddiya mu baasarata